thank you mbokk yi am nañ mbégte bu baax ak contentement bu rëy di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Zarak Vision mbokk yi comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu ñëw fii nga xamante ni moom Malika plaza. c'est le grand champion muy Boy Malika gannaaw ba mu jógee arena nationale ci diggante mu Boy Lo mbokk yi yaakaar naa xale bi euh, espoir la boo xam ne mi ngi ci biir làmb boo duggee Malika benn barak Kër Massar yëmbal moom lépp ñoom ñëpp moom lañ yaakaar wax dëgg yàlla mu nekk xale di ndaanaan bi mu ci làmb léegi di ci def foiram di ci def lu am solo wax dëgg yàlla moom booy Melk tey nag ma seet si ko nar a waxtaan ak moom ci lu bëree bëri ci biir làmb waxtaan ak moom tamit ci carrière du ci ñàkk ñu ñëw ci actualité dama koy bëgg rek bàyyi ko mu nuyoog bokk internet bu ko defee ñu dugg ci sànq nag gis nañ fi ay daanu yu waar borom sareet yi dëgg yàlla jubili nañ <laughs> ànd ak booy Malika ñu ngi koy bëgg bu baax bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi bër bëgg naa la. waaw fay naa la di wax ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonante bi sant samay ñaari waajur di sant suma gaay di sant staff booy Malika bi yëpp di ci jiital balsi bi ah di ci jiital balsi bi bu baax a baax a baax a baax di nuyu euh, Coly Design di nuyu El di nuyu góor gi mbaay mafia bi yëpp ah waaw émission bi nag tey maa ngi koy may l'homme suma booy la suma xarit la suma doom la di nuyu dawalkatu sereet yëpp ci mel ni Alpha Mburoon waa Mbaaroon Nday Ngom xam mafia bi gis nga ko ma ngi sante gaa di len di bëggee kalamu bu mbar ndoy ngom ak mafia bi fofu non yëpp di nuyu yëmbal ben barak keur ma sar ah ma ngi len di bëggee di bëggee kep kuy teel lab rek di wax Ali ma ngi lay bëggee bu baax baax man Boy Malika di nuyu ambrante super yi di nuyu ñëpp ha ah, ak fi ngeen ñu fekk ni muy Cheikh Baye Fall ma ngi koy bëggee bu baax a baax diko di ko nuyu tamit mom day waajal fi ni ben festival fi suñ keur suñ keur ngeen ñu fekk quoi waaw maa lay bëggee bu baax. Malika bi yaatu na yaakaar naa ne tey nga ñëw choisir Malika place lu waral lu waral loolu. waaw man maleka laa dëkk boo nee booy Malika rek ça veut tout dire waaw kon suma kër ngeen ma fekk quoi waaw ma ci am ferte bu baax a baax a baax a baax man fii nii aw ma ci sens interdit fenn waaw. sa dugub làmb lan moo ko indi ndax danga nga choisir lu doy waar muy làmb te làmb xam nga nii bari na ay risques ci ne lan moo tax nga dugg ci làmb. nattu ak wërsëg moom du lu jaam di sabab yakub yàlla la ko quoi dañoo nekk ay boy yoo xamante ni macha allah nekk ay boy yu xaw a lëj ñu dëkk dëkk boo xamante ni dañ daan dañ fi daan gis suñu grand ñuy bëre yaa ngi dégg ñu leen di topp ba tey ku ci mel ne Malaw Seras waaw parce que ci mu kaayam lañ daan fooyee fu mu daan bëree dañ ko daan topp virus bi foofu noonu la ñu duggee ñu nekkoon xama nekk ay boy yoo xam dañ daan bëree mbapatu koñ yaa ngi dégg. ñi ngi fi gis ni ni ñoo ñu top suñu mbapat ba suñu arène ñi ni rek mën nañ wax lu bëri si Boy Malika waaw lool mo ñu duggal si lamb quoi Malaw Seras lañ doon top suñu papa Malal ndjay wa di fowé yëmbal nak quoi fowé ci ci ay ëttu mbër yu bari virus bi nak fa lañu duggé ba tay yalla dogal lim dogal quoi sunyun. ñun. mbar mhm. année nga dugg ci lamb yaakaar naa su ma juumul année 2015 la. waaw le 7 décembre 2015 la bëré arène waaw. waaw le 7 mille 2015 laa bëri arène waaw. kon boo ko ci mbër yi nga xamante bu buñ leen laajee ban année lañ dugg ci làmb wala sax ban jour lañ dugg ci làmb ñu fàtte ko bokkoo ci ñoom. waaw xam nga man ni ma duggee ci làmb amaana bi may dugg sax wax dëgg yàlla lu tuuti laa Seyna Fall mii nii sama wet nii moom mën na la wax lu bëri ndax moom moo nekkoon suma encadrement ci suma lépp ba tay jii nii ma wax ak yow bi may dugg arène le 7 décembre 2015 làmb ji lundi laa ko jël samedi laa ko bëree waaw. te nekkoon na loo xamante ni métti woon na torop nag mais teewul ñoom ñu gëm ma ba tax na tey ma yegg si fii te li tax ma jàpp ko nag le 7 décembre sama bisu juddu la quoi waaw waaw mu tombe tamit ma njëkk koo bëri arène tamit njëkk ci am ndam estadu ngor bi waaw mu nekk loo xam ne neex la daal te du ko waaw. dañuy taxaw ci le 15 jàpp 2019 dañuy taxaw ci 2015 jàpp 2019 mu nekk 4 ans yoo yaa ngi ci biir làmb laataa ñu ñëw ci 2020 jàpp 2023 su ma juumul làmb def nga def nga fi plus de sept ans wala huit ans boobu ba léegi yaa ngi bay waar ci làmb laataa ngay dugg ci arène bi mu mel ni yaa ngi yaa ngi woon ci tournoi yi wala ci mbapat yi. waaw man maa ngi woon ci mbapatu koñ man bëri naa mbapatu koñ ba nga xamante ni dem naa ba nga xamante ni mbapat bu ma dem pour bindu gars duñ duñ nangu ma bëre waaw parce que talent bi gars yi ëppoon doole ñoo ëppoon yaram mais dama leen dàqoon a bëre gën leen a ñeme géew gi demoon naa ba nga xamante ni ñi ma war a bëreel sax su ma ñëwee bindu si làmb ñu ni Boy Malika moo bindu dañuy bañ waaw dañ naan su ma Malika bëree dañ mbapat bi day yàqu ma jógee foofu noonu dem làmb séeréer waaw nekk ci mbapat yi damay bëre mbapat di bëre arène parce que tolloon naa benn moment boo xam ne dama toll toog naa deux trois ans yoo xamante ni bëréew maa ndax dama dama dama feebaroon bi ma jógee foofu noonu nag pour amaat recul pour mieux sauter dama ñëwaat defaat ci mbappa di quoi di bëri simple di dem adhéré Senghor chaque di dem si àll bi di compétir yi yaa ngi dégg noonu laa ko nekkee woon après nag ren gis nga li yàlla dogal ma def trois combats trois victoire waaw. mais jaar nga Casamance. <laughs> waa foofu sama dëkk la foofu dama faraan daan bëri ji chaque jour may profité ci occasion bi di nuy waa Signan waa Badiana Bayla Guignac ah fooñu bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. di nuyu waa sor parce que ñooñu tamit dañ dañuy sonn si man dal wax deug ya Casamance li ma fa def beuri na beuri na mbeuri ma fa daan dama daan joge fi ni dem di bëri ji foofu noonu bokk naa ci mbeuri ñeuk a gagné foofu noonu trophée wa wa gagné na fofu machine grand moulin yi may ko wa dekk bi Casamance wa amna solo kon mu melni lamb dal dañ ci manam dang ko tarbiyu maam da nga jaar fu metti la ta ngay dugg ci arène wa non dama ko tarbiyu mom wax deug yalla parce que bu ñu sa papa nga ni Malal Ndiaye koku da nga wara a tarbiyu lamb parce que daf ma doon wax ben wax bu am solo ne na ñep ñëpp ñoo nek roi des arènes mais war nga gorlu ba bind ci bibliothèque wa war nga war nga gorlu ba def bind ci téré ku waxati lamb bu ñu ay diw ñu ne diw lim def ci lamb te loolu la ñaan yalla wa ñun loolu ñaan yalla def ci lamb lu kenn deful yombul nak mais ñu ci liggéey bi quoi waaw. année 2015 nga dugg ci làmb sa premier combat ko ko sama premier combat man ko beurel ibukana ibukana waaw. waaw bu bu bu yof waaw yalla may ma ci ndam. dama bëgg ñu taxaw ci 2015 de jàpp 2019 Sama jum lu bari nga fa ay pile de 3 combats. waaw man chaque saison rek man dama daan beure premier at bi ma dugg ci 3 combats la beure waaw 3 combats la beure 3 victoires at bi ma dugg si làmb. saison 2015 jàpp 2019 bëri tey ba ma doon limal ñu ngi fa bëri. waaw bëre naa fa ak Ibou Kaana yàlla may si ndam ma ñëw bëre fa ak réew bu Pikine yàlla may ma si ndam ma bële faat ak Njalabaan yàlla ma si ndam. waaw waaw ma ñëwaat beneen année bi bëre grand komba ñàkk ko. beneen bi mais mais ci année la boobu. waaw ci 2016 bi. dama bëre ci 2016 bi ñàkk ko. ci beneen ci beneen waaw sama premier grand combat parce que loolu li tax duma ko fàtte mooy ñii bi ma ñëwee ne leen damaa am grand combat dañ ne ma yow munoo dugg arène démb tey nga am grand combat loolu munul ne ñoom bi ñu demee ba esat la ñuy gëm ni man maay bëre grand combat bi parce que dama leen doon wax naan grand combat maa koy bëre làmb jooju li tax ñu gën koo ñàkk mooy wàccaay waaw mais bu fekkoon comme tey la nii. ah waxuma duma ko ñàkk de mais du yomb waaw billaahi waaw boobu ñàkk préparation ak nekk xale ko mais tamit jëlee nañ fa leçon yoo xamante ni tey moo ñu yóbbu fi ñu nekk nii quoi waa année deux mille dix neuf jàpp deux mille vingt ci ati maanaam ci ati corona su ma juumul deux mille dix neuf jàpp deux mille wala deux mille vingt deux ñu nekkoon ci ay années yoo xamante ni metti woon na réew mi doon ko dund mais yow pour man sax dundu woonoo corona leneen nga room dund. 2020 Ramadan 2020 loo ci mën a expliquer ci jaar-jaar bi nga fa def ndax lu doy waar nga dund fa. waaw non loolu moom li tax mu metti si man wax dëgg yàlla parce que dañ nekkoon dañ nekkoon di waajal saison dañ duggoon hivernal moment boobu noonu dañ duggoon hivernal si koor gi boobu gaay yi dañ ne couvre-feu moo am léegi ku ci mel ne général armée dañ duggoon hivernal ñu ni ren dañuy dañuy lëlu di entraîner ba nga xamante ni bu saison bi tijjee tournoi yi njëkk a teg ñun ñoo koy jël. parce que moment boobu mbëri kenn entraîné wul mais biñ entraîné pile ay quinze jours si koor gi si laa génn am am am choc waaw ñu agressé ma dóoroon ma bal quoi yàlla dogaloon nag xama ma nekk fan xëy na tamit loolu ndogalu suñ borom la quoi waaw xëy na ndogalu suñ borom tamit tamit loolu ñu ngi koy ñu ngi koy nangu bu baax a baax a baax loolu moom moo ñu tere moom moo moo ñu téewoon ci trois ans yooyu noonu bi ñu génnee ñu ñëw defaat li ñu def deux mille vingt trois quoi waaw mais da nga fa da fa da nga dundul metti ndax koo xam ne dugal nañ la ci sa yaram loo loo xamante ne parce que nit dafa dafa dafa dafa xaw a yéeme tey bu amee loo xam ne dugg na sa yaram te bokku ci rek da lay sonal nga jëloon bal pistolet ñu jamoon la ko bal ba nag fi xëy na ba léegi yaa ngi koy dund ba léegi mu ngi sa yaram mais jaar-jaaru bal bi dañu bëgg nga ñëwal ñu ci début à la fin. waaw xam nga loolu noonu man du faral di si bëgg di di di di di wax parce que chaque jour wax naa ci waxati ci quoi wax dëgg yàlla. mais mu nekkoon loo xam ne lu métti la mais tamit sant yàlla ndax am na ñoo xamante ni bant dugg na seen yaram ñu jaare fa faatu yaa ngi dégg te tey suñ borom dimbali nañu ba nga xamante nii tey ñu ngi mën a tenir loolu du ñun nag du suñ jàmbaar du dara mais amaana yàlla moom moo ñu suturaar rek parce que doomu aadama moom ku ne xam na ni dara xajul si moom tey bu ñu am lu ñuy woyaale yaa ngi dégg te loolu kuñ ko waxul doo ko xam waaw te sant yàlla te gis nga parcours bi ñuy def kon amaana ndimbalu yàlla suñu borom rek la quoi waaw moo tax dañ ciy sant yàlla bu baax a baax di nangu ndogal bi waaw te bientôt incha allahu rabbi dinañ voyage dindi ko ci kàttanu yàlla waaw. mais bal bi yaakaar naa ne dañ la agressé woon def loo ko ndax ñooñu tamit gis nga leen. non ñooñu moom gisuma leen te bu ma leen gisoon nii dama leen di baal wax dëgg yàlla bu ma leen gisoon nii dama leen baal parce que fi ñuy defee émission bi tout prêt la waaw mu nekkoon temps couvre-feu wax dëgg yàlla mais nag man lu ma jàpp ni rek doomu aadama lu war a dal si yow day dal sa kaw ala kulli alin kenn mënu si dara amaana noonu la waroon mënoon a demee noonu la demee tamit ñu ngi ciy sant yàlla. su boobu da nga dund lu metti dëgg naa fu na jaar nga fa ci opital yi. waaw non dem naa hôpital Kër Massar nangu ñu maa jël ñu dem yeneen hôpital guddi googu noonu métti woon na ci man quoi métti woon na ci man trop mais nag sant yàlla amaana amna na ñoo xam ne loolu noonu da leen dal duñ gis ku leen taxaw waaw te loolu noonu bi ma gis taxaw bu baax a baax a baax a fan rek ma fa demee bu dul moyen wax dëgg yàlla buma amulon moyen wax dëgg yàlla ken waxatu ko quoi waaw. te loolu ba léegi yaa ngi koy dund nii. waaw ñu ba bal baa sa yaram. waaw ñu koy dund. waaw ñu koy dund bu baax a baax a ah, mais lu waral tam lu waral tam bal bi nekk sa yaram ba ay moyen yoo ko dindee la wala. waaw ñàkk ay moyen tamit ci la bokk fan ñoom li ñu wax rek fi fi bal bi positionné woo ñoom mënuñu laa opérer lu dul laser moo la mën a opérer tey bu ñu la opéré woon tey fi mu nekk mën nga am nerf sciatique wala ñu dagg sa rein yi te loolu yàlla nañ ci yàlla muccal waaw loolu moom erreur la boo xamante ni sa waay amaana daal daa jotagul mais bu jotee rek waaw yàlla dina indi xéwal yi ñu dem faju ji ñëwaat. léegi fu mu ne sa man sama côtelette gauche la ne. léegi mu ngi fa. waaw mi ngi fa maa ngi koy dund ak fierté ah. waaw di ci sant yàlla bu baax. waaw bal ba réel la wala wala wala lan la. non xamuma nag quoi parce que rajo yi daal ñu ngi fi boo xoolee di nga xool fu mu positionné woo ci côté ci côté di quoi waaw. mais ngi dem ay rendez wala wala wala ba léegi ñu ngi lay toog. rek lundi bi passé ah dem naa fan parce que sama combat bi passé dama si gaañu woon quoi. sama digganteeg booy ah entraînement laa si gaañu woon. entraînement laa si gaañu woon. contact waaw laa si gaañu woon. léegi léegi léegi blessure bi nga nga bëri wàll ak Boy Lo parce eh, que Boy Lo ndaanaan lu bëri kala tole dafa am doole ñu bëri ñu di xel ci man man Malika laa dëkk. ta man jàmbaar laa te jàmbaar dañuy topp sama ginnaaw man tollu ma nu gaay du mais du ma néewal doole si biir géew loolu am man dom Malika laa ta dama fowee loo xamante ni bëriwul góor yàlla ko fowee muy am fierté nak ci loolu noonu yaa dégg. te kon man mënu ma ñàkk a nekk jàmbar te am ñii topp sama ginnaaw rek su ma leen xoolee wax dëgg yàlla no ndam damay jë gënal sama bakken bii nii quoi wax dëgg yàlla waaw. mais fi la jamoon ba léegi cicatrice mi ngi fi. waaw mi ngi fi waaw. ma xool ma xool mi ngi ni gisoo ko ni. joo jumal <laughs> mi ngi ni. waaw lu doy waar la mais amaana sant suñ borom rek. waaw yàlla moo mën lii waa parce que xam nga ne côté côté poitrine gauche yow dafa sensible. kon lu la fa dal lum ndaw ndaw ndaw boko ko xamal ni du sax jambar ndogalu suñ borom la waaw. nga bëri ak ay Bébé Jackson bëri ak ay Papa Lay bëri ak ay ay ay ay ay Boylo légui nak joy nga ci Boylo adversaire yi bari na mais da nga jëlone dañuy taxaw ci Boylo parce que da nga jël adversaire bo xamni ñepp dañ ko fay bàyyi yaakaar naa bi nga koy koy jël sax bobu ñu bari bàyyi nañ ko fi. waaw man dafa am luma la wax légui nee la man Malika la dëkk ta dawuma yoole nee la man duma boy kenn waaw ci digg ñànkatang bi laa nekk soos bi wër ma Boy Lo benn interview am laa seetaan mu ni moom mooy seul mbër boo xamante ni amul benn góor bu ko ñeme dama ko doon wax ne nag ne ko loolu noonu amul yaa ngi dégg moo tax biñ bi bi ma seetaanee interview am ñu ni Boy dañ fee bàyyi avance am ak loolu noonu dama kaa jël man Boy bi ma koy jël sax man ku ma ñii nii booy dañ doon mer ñu ne Boy Lo làmb xamu ko yaa ngi dégg man leen non dafa am lu ma bëgg a wane si làmb rek te bi ma ko jëlee yàlla suturaal na ma may ma ndam si kawam waaw booy dafa am lu ma leen doon wax te bàyyi ñu ko xel dama leen wax làmb ji retiré la te ku yéex doo ko gis te noonu la demee ñi nga xamante ni seen bëri dafa fulu daan naa booyloo ba ñibbi te gisuñu ko waaw mais après nag mooy loolu lañ def recours yàlla suñu borom suturaal ñu jox ñu ko waaw. jóge nga ci booyloo te espoir nga ci Malika. cool yi bari na de adversaire tamit bari na fi koo war a jël jamono. jamono jii nii yéen mbër yi nga xamante ni da ngeen di gis avance booy Malika di daw wala di daw làqu bëri na mbër yoo xam ne ñu ngi leen jox sama avance ñu ñu ñu koy delloo. ay Nandi Fall. yaa ngi dégg Nandi Fall lamb la. waaw Nandi Fall dañoo waroon a couragé. billaay walaay dañoo war a couragé. Nandi Fall bi mu jugee bi mu daanee papa booy jënee ma daan boyloo dañoo war a couragé. yaa ngi dégg ñax jariñu man ak moom lamb la yaa ngi dégg balagay junior bu ikire lamchar taxé taxé Seras ma nga dégg ñukoy outal adversaire pourquoi pas mu jël Boy Malika na jël Boy Malika taxé tarkindaa la way man doomu Malika la bedda sen la man doomu Malika la bedda sen la ci digi ñangatang bi la né way ban tarkindaa ñoñu ay majorette lañ waaw buñ amé mbambu Malika amna lepp Malika amna lepp lépp déggoo ma de mbëbës baa fi armée yaangi fi tout prêt waaw stade baa ngi fi mairie baa ngi fi. police baa ngi fi tu près géej gaa ngi fi. jàmm gën sareet yaa ngi fa boo yaa ngi fa di sol seen i foloka seen i seen i palu ak seeni i cargo lu ñu koy dugg. lan laa dugg see fii léegi. yow de sareet nga fi dugg. waaw kon loolu dawul suñ yaram ñoom lu ñu def rek fii nii lañ ko gisee déggoo li ma wax ñun duñ ay daw laax duñ booyu kenn ñun ñu ngi ci digg ñànkatang bi balse bi wër ñu nag waaw. Hmm. mais bal bi yaakaar naa ni fii xëy na saison balaa mu jàng dem dindi ko. waaw yàlla baax na man daal man instant bi nii lu ma gën a ñor na ma jox komba ma bëre gis nga balaa saison bee tëj dama see war a bëre na ma gaa yi jël loolu la ñuy xaar Libidor mi ngi wër di wax ku nekk mu woo ko Libidor bu Grand Yoff bii mi ngi tourné fii nii di woo ay booy jigéen ku nekk mu woo ko naan ko booy Malika ndax xam nga xam nga ne. sama avance bu ñu la ko joxee jël ko jaru ngay woote fii di wër ay di ma lijjanti man daw ma kenn nee naa la man du ma booy kenn maa ko gën a miin mbapat fab ngemb naa mbër mu daan ko ay yooni yoon hmm. déggoo ma de kooku bi muy bëree ñi ñun ñu ngi jàng école déggoo ma de bi muy toj làmb ñu ngi jàng école làmb dañoo boole dañoo daf ma war a jël dégg nga ma promoteur yi nañ wax si loolu noonu man man maay seul mbër bi nga xamante ni nekkuma fii di daw lu métti ndax làmb cin buy baax la amul buy sedd yaa ngi gis nga ñun ñu ngi ci digg ñàngatang bi fii lañ dëkk ci maaro bi yaa ngi dégg dañuy entraîner matin midi suñ amee lu yomb lu ñuy def dañuy yég ci seret yi moo gën a yomb si lu ñuy def waaw. caatuwaalo. caatuwaalo kooku kooku di. caatuwaalo moom déggoon naa nga koy dànkaa. tapet la. ñemewuma bil déggoo ma de caatuwaalo tapet nga. xamal parce que kii dañ koo dund si biir àll bi waaw dafa am benn dama ngemb général bu Malika mu am benn dëkk bu muy bëree ci ginnaaw Kutaal promoteur bi waxoon ni day teg douze nag yaa ngi dégg ñu dem mu ne ñaare nag lay teg ak ak deux mille boo gars yi duñ bëre ñu lakk carburant bu bari ñëw foofu noonu ma promoteur bi man maa ko poñe barki yonent yàlla Muhammad su dee li ma lay wax ay caaxaan la nga laaj général Malick wala nga laaj ko moom bu dee ñemewul yàlla promoteur bi maa ko poñe fekk ko ba biir gàllem récupéré xaalis bi ne ko da ñuy jox xaalis bi nga doon teg da ñu koy jox force man maa ko récupéré. am nga doole yaa ngi dégg non parce que xama tey munuñoo munoo déclaré li ngay déclaré ñun ñu jógee ba dakaar sol kalbina yor suñ oto ñaata mbër ñoo ñëw foofu noonu ñu ñëw nga bëgg a tas seen yaakaar ñu war a ñibbiwaat te ñu am njaboot xaas bi maa ko mu doon jooy ma ne ko taxawal sama ginnaaw dama lay jox. kuy jooy caatu waalo. loolu moom ay waxi caaxaan la. moom billaay wallaay taalaay li ma la man du ma fenal mbër moom bu ñemewul yàlla dina taxaw wax ne lii booy Malika moo ma jox dix mille francs ma paas dem ñibi ñoom mbër yooyu noonu yëpp. billaay wallaay taalaay. <laughs> kon jaar ngaa mbër yooyu. bëri na ay ponkal yoo xam ne ñu ngi fii nii de mais bu génnee nii si ñaar bi de des fois nga benn mbër boo xam day toog fii nii àll bi dama koo toj dama koo nii day dem ñu daan ko premier tour wala deuxième tour mu ne toj naa àll bi loolu àll bi bu fekkee mbëri li ñuy wax ku nekk bu naan toj naa àll bi toj naa lan mooy des si àll bi dara caatu waalo tapet la bis bis moo jëlee naa la wan ne tapet nga la da moo leen di téye si géej gi ngeen di yuuxoog di takk ay kor rek ñun lijjanti wuñ leen ñu ngi ci corbeau no limite waaw. corbeau corbeau sama coach la corbeau. <laughs> corbeau la da gënu koo xooteeku. billaay wallaay taalaay ibulaay maa ngi lay nuyoo passage borom Corbeau maa ngi ñëw dugg si hivernal léegi incha allahu rabbi Corbeau no limite billaay wallaay taalaay bu téewoon la da moom moomu noonu sax mu bàyyi barki arxuraan fi may entraîné am na mbër yu bëri ñu ngi ci arène bi nii di fayee ko ay millions dañoo ñëw foofu ñu fay leen deux jours lañ entraîné gedd seen abonnement man damaa entraîné ba sama coach yëkkati yére may ma ko ne ma chapeau à toi li nga def nii musul am fii nii. mbër bu mës a ñëw fii nii delloo xolal may nga ma sa abonnement dem gedd caatu waalo day jaay xoteeku la da da jëla sama avance boo jëlee sama avance di nga xam ne liggéeyoo sax kii te bu jëlee sama avance xam fa laay entraîné si kàmb yi jël sere di di simle di daw di génn déggoo ma de bilaa walaay taalaay. bëgg naa ci yow. waaw kontaan si yow. kontaan si yow bu mais na la gars yi jàppale nag na la gars yi jàppale bu ko defee nga mën a dindi lii ne sa yaram bi. waa ndax yaa gën a xam ne lii àndul ak ay non si man soo gisee tey man am na yoo xam ne sax du ma ci bëri di si débat parce que man jàmbaar laa ku ci jàpp da nga see war a jàpp ku ci jàppul da nga see war a jàpp parce que ñun amuñu lu dul làmb làmb lañ bëgg yaa ngi dégg tey li may wax chaque jour rek maa ngi sant waa si ko bala maa woo balsi bi maa leen sant bu baax a baax a baax parce que ñoom fu sama bët. taawee gis naa leen fu sama bët xama ñoom gis naa leen ci muy naqar muy bànneex gis naa leen chaque jour ñoom ñoo tax may rayante ak Malika bi nee naa la damay sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Xaadim Mbay président maf xama di sant balje bi bëggee ku ci mel ni Koli l'homme fort naa la moom laa may émission bi di bëggee El Basir góor gi mbaay xama fàllu aw busoo sa sama combat ñu jàpp ko nag fàllu waaw policiers yi nañ man nañ dawal Sam Fall samay supporters Fallou Bousso dafa sono chaque sama làmb ñu jàpp ko waaw no xam nga rek ñoom ñoom moom deful ñu dara wax dëgg yàlla waaw xam nga amuñu sago ci seen mbër quoi amuñu sago ci seen mbër waaw maa ngi bëggee ñëpp fi ngeen ma fekk ni see Baye Fall maa koy bëggee bu baax a baax bëggee waa Mbaaru Ndeye Ngom terminus di jël waaw di jël nuyoo bi nag di ko tex ci loxo Alpha Morone mu séddalal ma ko borom seret yëpp yaa ngi dégg Moussa Mbaaru Ndeye ñooñu su ma amee làmb dañuy bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw taxawu ma te sama combat bii di ñëw incha allah lu kenn mës def laay def waaw benn oto duma topp lépp ay saret la maak ñoom ba biir esat waaw yow naaru góor bi ma yéeg léegi gisoo ko kooku ragalul dara nee ñun ñu ngeeg lépp waaw di bëggee ku ci mel ni Mondiaye suma papa Malaw Seras buur ndax ñooñu dañuy sonn si man Malaw Seras daf may jël di ma xama di ma entraîner chaque jour buur waaw alam du ko bal di bëggee jour kaana bu baax a baax a baax ndax da siy jàpp chaque jour euh, Xaadim Mbaye président ma papa Birane Sila ba balangooñ maa ngi koy bëggee balangooñ <laughs> borom yokkal seen njëg ma jaay la balangooñ maa ngi koy sant bu baax a baax parce que moom it da siy jàpp quoi euh, yow Nandi Fall balangooñ nee na boo jëlee avance bi mu may la deux cent mille jëlal la deux cent mille jàpp la daan la booy malekat daan la du gàcce booy maleka daan la du gàcce man jàmbaar laa de ku ma daan war naa laa daan waaw maa ngi félicité ay ñoom papa laa ñi ñangoo jël sama avance ñooñu ay jàmbaar lañ waaw ñoom ñi nga xam ne dañoo jël sama avance ma yóbbu leen top 5 maa leen di sant bu baax parce que ñooñu ay jàmbaar lañ quoi. Nandi boo ko jëlee ko yóbbu top 5. waaw loolu loolu loolu du waxtaan sax. moom di bëggee waa carénage bu baax waa Grand carénage maa leen di bëggee xaar yàlla ñooñu dañuy sonn si man sama coach Corbeau no limite Grand Lamine Siko kooku dafay jóge ba Europe ñëw fii ni jël alalam bëri di ko def si man yaa ngi dégg di ma fayal saal chaque jour di ma toppatoo nu mu waree seexu naa daf maa yoral xaalis ngir yàlla fay ma sonn naa ah, seexu naa góol jël nga avance fay ma sama xaalis gaan sonn naa instant bii nii mooy loolu noonu waaw di bëggee Malika bi suma yaay mama naar maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee ñëpp ah waaw Alpha Morone moom dégg nga lu ma la tasaareel ma affaire bi ci borom sereer yi bu ragal loolu noonu dawoo yoole waaw waaw jaajëf di la bëgg. aja bëgg nañ ci moom kooku moo nekkoon Boy Malika ñu ngi koy bëgg bu baax di bëggee mafia di bëggee mafia yëpp borom daanu yeeg man mafia bi laa xam lu ñu war a wax borom daanu yi <laughs> yéen yéen yéen fi ngeen daanu fi ngeen jël seen daanu fi daanu fi. amen Ndandi yow laay waxale yow la ñuy jox lii booy Malick gaa ngi nii de xam nañ li ngay bañ da ngay bañ mu lay ci mën karaw day bëre ba dagg rek say kolt bëre ba jël pondam ko di dàcc digg bopp ay eh, ñun la ay eh, wala biigeen baagan geen ay eh, tàpp duñu loolu mala sa waay ñëw rek ñu toog la saal yi mala sa waay jàngale ba nga doon karaaga ay booy Malick la de mbër bu mu jàpp da ngay xaar ay tout tasardu kontaan nañ ci moom bu baax di kontaan ci booy Malika ñuy bëgg bu baax suñu yi sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ngeen jëf